watch na de. Boy, come to ba. Dere ba. yow mi tay sa kar gi gel na jeeg de xanaa def neex. macha allah gis nga de. ins bi kay damay teel a dugg gàlle. kar mat Sénégal bi. asalaamaaleykum. Pulo. ndigal ko vous allez. eh Fatoumata. mais boy na naa la de. si loo nekk. yaa cool. cool. billaay maa leen raw ndigal. he ban farmer. xanaa du farmer do mur Ndiaye bi dëkk si boobu koñ bi de. kala bobu don ñew fi di jënd sipsi meew ma koy may soosi lox ah man la di a ah, séré anos hé kala hee gën na nga def mba yaa ngi jam ça va je vais très bien alhamdulilah. bon sinon man semaine passée la jógee Belgique. mais dama dégg ñu né Sénégal dafa bëri ay agression. Ya. motax nak comme yeen samay way ngeen te yag nañ motax ma ñew ya, ngeen outal ma garde ko corps. tio fils hee noppil ngay nekk fii di bandi bandi di wax naa ay ca fii diw doo ko bàyyi mu ñu xam lu mbuub eh jarul ngay eggali yow am nga garde corps ba pare yow man maa lay garde yow moom sama jigéen nga du ma bàyyi kenn di la garde sa sécurité maa koy gérer ah ndigal mais fa yow tamit man j'ai fait cinq ans au Japon attends je t'explique ma wax la benn anecdote barki démb dama ànd ak sama rakk bu jigéen trois agresseurs connus. Trois agresseurs Mais bien sûr, trois là la wax. Ñaar ñu yor paaka, kenn yor Mais même pas 20 secondes ma waccé 20 secondes Waaw waaw, la jël poulo. Non non non. Hum, nopil. Eh, quoi, boul mu duggal affaire fer yoy, ana fenat he Fatimata ah, waxaalaani gonga de waxu dëgg moom rax bu jigéen sax amu ko rax bu góor la amu day fen lu mu la wax bu lu dul kaf tubaab bu naxari bi maa ngi suukar la jaay waxu dëgg day fen o fenat yow kon dëggal yow kon sax ñu métti jigéen ak wax bu jigéen da sos non Fatimata da nga comprendre sama cousine la quoi eh laaj ma la laax noppi la sa boobu ndaw